bismillahi lii nag ak laabiire la di ñaan gu am solo goo xam ne sëriñ tuubaa ko laabiire jullit ñépp mu jële ko ci téere bu ñuy wax kitaabul muxtaar wa mutaalixul anwaar mu ne jëli nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ne amul lu gën a metti te gën a tar guddi gi njëkk ci bàmmeel kon nag na ngeen yërëm way dawlu yi faatu ci di leen sàkkal sarax koo xam ne nag amooloo saraxe man ngaa julli ñaari ràkk yoo xam ne ràkka bu ci nekk danga cay jàng faatiha benn yoon ayatul kursiyu benn yoon alxeekumu takaasuru ba saar wi jeex benn yoon qul huwallahu ahad ba saar wi jeex fukki yoon ak benn boo jullee ba noppi nag nga jàng ñaan gi wax ne allahumma inni sallaytu haadihi salaata wa taalamu ma uridu allahumma ib'ath thawaabaha ila qabri fulaan maanaam foofu da ngay tudd turu nit ki boo ne allahuma iban sawabaha ila xabri diwu sàngam nga tudd turu ki ngay ñaanal mu ne ñaan gii de képp ku ko defal ku faatu sunu borom dina ko yónnee fasaasa junni malaaka yu koy wettali ca biir bàmmeelam te malaaka mu nekk day indaale ak leer ak xewal te noonu lay nekkee ak ñoom ci biir bàmmeelam ba keroog sunu borom diwal boftu bi muy bu àdduna tukkee ba tey du yam ci loolu mu ne moom mi nga xam ne moo doon sunu borom dina ko ca fay ci ay yiw lu mat ñeenti junniy daraja defal ko ca yoolub ku aji màkka umra lu mat ñeenti junni yoon te dina ko tabaxal lu toll ci junniy kër ca aljana mu ne njariñ lii nag jullit bu nekk war nga cee góor góorlu di ko defal mbokki jullit ya nekk ci seen biir bàmmeel ku ko mënula def guddi gune it nga di ko def guddi ajuma gune wala sax donte benn yoon nga koy def ci sag dund laa biire gi nag jógee ci mbindum loxol cheikhul xadim sëriñ Abdou Saman Mbàkke ibnu sëriñ bu mooy ki ko yaatal baaxe ko jullit ñépp rawatina taalibe sëriñ Tuubaa yi ñu di ko sàkkul ci képp kuy jariñoo ñaan gi nga fasal ko ci sunu borom fay ko yoolub la mu digge ci kuy laabire sa mbokkum jullit te sunu borom yàggal ko fi lool te ñaanal ko it sëriñ Tuubaa nangul ko ak taalibeem te gërëm ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah